daleen ak jàmm mbokku internet yu seen njariñ TV daal di wax nag ci li nga xam ne moom moo xew ca conseil constitutionnel ndax ginnaaw ba ñu defee nak lii di tirage yi jëm ci boobu lépp wàll jëm nag ci parrainage yi xool ko ndax baax na am baaxul ba ñu war a mën a valider nag candidature candidat yi nga xam ne ñoo war a samp seen dënd ci élection présidentielle yu 25 février atum 2024 ñu tàmbali ko nag ci samedi ji ki di Ousmane Kane Hadjibou Soumaré ak Abdoulaye Silla, ñoom seeni candidature Yop, dañ ko recalé conseil constitutionnel mom mo def li ni mel Ousmane Sonko nak mom ba légui mu ngi xaar dossier bu candidat bu coalition Sonko président 2024 ñu programmé won ko ngir war ko càmbar ci samedi suba gi ci conseil constitutionnel wante nak da am étape bo xamné déroulé guñ ko en raison absence ou son mandataire muy maître sur les Ly jamono yi ñi wax ak yéen nak maître Ciré Clédor ba légue nak téwul ci siège bu conseil constitutionnel muy am solo nous ñu souligner bu qu'un ne représentant bu candidat bobu téwul ci jour bi lan la ñu prévoir pour contrôle dossier bi nak dinañ ko exécuter wala sax examiner ko benen yoon ginnaaw ba ñu yeneen dossier yëpp wante nag ci kàddu yi ñu mujjee am nee nañu maître Ciré Clédor Ly moomu lekkat dafa def ab malaise ba tax dafa nekk sous perfusion nee na nag loolu moo waral teewul ci conseil constitutionnel am ngeen nag Ayib Daffé moo nekkoon mandataire ga mu jega nag maître Ciré Clédor Ly nekk kenn ci avocat yi président Ousmane Sonko moom nag moo doon dem